Macodou Fall maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay maa ngi lay fay. Macodou Fall nga nekk njiitu collectif euh, national des impactés du TER ngeen fas yéene organiser ab mobilisation sociale ci dimanche 20 octobre 2024 euh, lan moo ko waral exactement. waaw euh, organisation boobu ñuy def nag li ko waral mooy toujours. dafay bokk ci suñu revendication yi nga xam ne ñu ngi koy def dans le cadre du projet donc ñun nga xam ne dañoo jële woon foofu ci waax bi et tout ça euh, nga xam ni état respecté wuñu seen engagement daal donc looloo wala a tal tamit ñu continuer suñu suñu combat bi mm-hmm. donc ba tax ñuy organiser le 20 octobre euh, ci centre Zac Sirat euh, mobilisation boobu d' accord mobilisation bi ma gis si ni invité d'honneur bi PM la Ousmane Sonko lu ko waral exactement. waaw Ousmane Sonko ndax euh, moom ba nekkee ba mu nekkee opposition yàlla def na ni daan nañ ko organisation si euh, daan nañ ko invité ci organisation yooyu donc mu doon teew des fois sax il arrivé bu munul ñëw sax mu yabal euh, son protocole chef de protocole la Jibi Ndiaye. Mhm. donc mu ko doon représenté ci ci ci ci mobilisation yooyu. donc plus d'une fois euh, def na ko def na ko ba ñëw na foofu sax au centre des accidents ñu def mobilisation bu mag. Mhm. donc mu accompagner ko parce que moom li mu doon wax ni mooy. Euh, li nga xam ne tey jii moo xew ci ci ci kii bi du lu nga xam ni lu lu jaar yoon la daal. Mhm. parce que la façon dont tey jii kër ba pare fay yu ci indemnisation yu jaar yu raisonnable loolu yëpp da ko doon préciser. Hmm. donc tey jii buñ demee ba yàlla def mu doon premier aussi donc mënuñu bi nga xam ne tey jii moom la doon ñëwee foofu. moom ngeen doon xeexee euh, tey jii Macodou Fall lan ngeen di laaj euh, état bi exactement parce que état continu continuité la am na lu ngeen doon laaj président Sall tey ngeen wéy euh, di ko laaj président jomaay lan la exactement waa ñun li ñu doon laaj rek mooy li ñuy faral di laaj chaque jour te li nga xam ne c'est un droit aussi du la nga xam ne tey jii dañu koy may wala dañu koy sarax donc état moom moo am projet bu magam muy terre affaire deme noonu donc fekk ay nit yu dëkk mu bëgg a jaarale terre foofu mais malheureusement respecté wu ñu droit des droit nit ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci ci gox boobu quoi ba tax na vraiment ñu salfaañe ak ak seen yelleef donc ba. Euh, boo xooloon au début amul woon recasement amuñu woon site ba nga xam ne dañ leen fay dugal ci impact yi et tout ça mais grâce ci collectif bi ñoo combattre ba vraiment ñu wutal leen site de réinstallation site boobu tamit ñu constaté que ci aménagement bi aussi dafa am ay lenteur parce que ñoom ils avaient di que dinañ ko commencé en deux mille vingt et octobre deux mille vingt nañ koy aménager octobre deux mille vingt deux mu waroon jeex mais ñu toog ba octobre deux mille vingt deux jeexul. ba tey fu may wax ak yow nii euh, affaire bi ba léegi ñu ngi aménagé site bi mais dafa am ay lenteur d'ailleurs sax ni ñu constaté mooy l'arrêt des travaux hmm. dañu constaté que les travaux sont presque quasiment en arrêt donc hmm. loolu lañ constaté ci ci ci site boobu ba tax na vraiment loolu bokk na ci suñu lu ñuy kaas beneen bi mooy ay accompagnement social tey ci euh, conciliation bi dañu ne woon chaque chaque personne affectée par le projet a droit à un million deux cent pour prime de vulnérabilité un million cinq cent pour prime d'accompagnement social mmh. et ceux qui louent leur maison aussi on doit à euh, kii benn chèque de perte de locatif mm-hmm. donc loolu tamit euh, vraiment gisoon nañ temps yi passé sax loolu lañ commencé di ko fay mais un nombre ba nga xam ni demeewul woon mm-hmm. donc yooyu yëpp ay problème la nga xam ni tey vraiment ay lenteur yi nga xam ne état moo ko teg a euh, ces la là donc loolu da daal vraiment ñu continuer euh, le combat. d'accord voilà. euh, tey jii socialement euh, nan naka ngeen di dundee mbir mi euh, état euh, waroo leen la ndàmp jafe-jafe yi lan la actuellement defu ko comment ça se passe nu ngeen koy dundee. waa jafe-jafe yi dafa bëri jafe-jafe yi dafa metti wallahi azim fu ma toog nii nii nii nii ku ma jàkkaarloog sama bureau mi ngi nii dans le secteur impacté du terre ka nga xam ni cinéma yi moom moo ko moomoon doon fa def ay activité am doon fa def lépp àddunam lépp fa la nekkoon di génne xaalis bu bari ci kiom yooyu depuis terre bi toj ko ba léegi non seulement fayuñu ko dañ ko dañ ko dañ ko escroquer xaw ma lan laa ko mën a mais ñu ñu ñu ñu rey ko ba dee amatul sax xaalis pour sax paas wala pour mu souvenir ay besoin bi ngi nii ma jàkkaarloo tey jii il est venu fii hmm. tey jii pour seetsi ma pour xool situation fan fan fan la tool donc des fois booy wax sax nit ñi dañuy def ay yow di ngay wax nii dañ koy inventé alors que ce sont des situations la nga xam ni les gens ils vivent de ça ñu ngi dund loolu donc connais beaucoup yi nga xam ni tey jii ñu ngi doon jàng nekk si dans leur kii yooyu yëpp bàyyi nañ jàng bi ndax déplacement boobu donc je connais aussi des dames yi nga xam ni au moins ñi ngi doon exercer seen activité économique musuñu am problème xaalis musuñu am problème kenn ñi ngi ci précarité bu doy waar ñu ngi ci précarité bu doy waar te kenn tegu leen ko dul état du Sénégal ñoo ñoo leen ko teg donc sans compter nag ñaata mag ñoo génn àdduna ñaata mag ñoo fi nekk te nekkatuñ fi ñu daaw ba seen alal bi mën a bëgg a seey noonu te loolu bu amee rek dañuy nekk ci ay problème héritage ak yooyu te ñëpp xam nañu ne famille sénégalaise. Mm-hmm. problème héritage la yan conséquence la mën a am. Mm-hmm. ci njaboot yi. Mm-hmm. donc yooyu yëpp ay problème yi nga xam ne tey jii kenn teguñu ko lu état Sénégal bi nga xam ne respecté wul les de réinstallation involontaire. édictées par les bailleurs. parce que tey jii bu ñu ko respecté woon amaana lii lii lii lii nit ñi yëpp loolu yëpp du am. mais malheureusement. li may faral di wax Sénégal rek boo xeexul doo am taxawul doo am te bu boo boo noppee ñu fàtte la. Hmm. boo noppee ñu fàtte la. voilà loolu moom mooy suñu suñu suñu suñu problème. waa donc ñun voilà. allez-y est-ce que nguur gu bees gi jot na leen euh, déglu est que am ngeen euh, ñu ngeen ci waxal par rapport ak euh, régime bu bees bi régime bu Diomaye bi ci situation bi. waaw nguur bu bees moom li may faral di wax bu fekkee ne ñoom dañ fi nekk woon. lan ñëw temps yi nekkee opposition di ñëw suñuy rencontre et tout ça ñu nekk au pouvoir ñu bind leen ñu bind leen ñaari yoon à deux reprises ñu bind leen amul benn retour maanaam tey jii amuñu benn réponse yi ci ci bind yi que ce soit le président de la république que ce soit le premier ministre invité nañ ko si suñu manifestation bi ñu ñëw je sais pas dina ñëw ou pas mais li li am solo mooy ni ñun ñi taxaw taxaw dugg parce que ñun suñu position moom duñu dellu ginnaaw nous sommes dignes de dignes sénégalais des sénégalais yi nga xam ni tey jii vraiment euh, tooñu ñu kenn defuñu dara lu dul suñu ak ak suñu yelleef dañ bëgg salfaane te ñun lu ñu mën a jaral pour ñu combattre loolu danañ ko def danañ ci taxaw quelque que soit état bi fi nekk parce que ñun nous nous sommes dit que l' état c' est une continuité la tey jii mënuñu toog fii. xam nga déjà nekk ci seen confort nekk ci dund bi ñu bàyyi ay nit ñi nga xam ni dañoo liggéey ba gañe sa seen adduna parce que gañe sa àdduna mooy am sa kër yar sa njaboot def lépp sénégalais bu nekk di daw pour loolu donc état dem am projet bu mel ni projet TER ñëw salfaañe seen ak seen yelleef loolu teguñu ko fenn loolu moom vraiment dañ xam ni on va se battre ba keroog ñuy am euh, satisfaction mm-hmm. loolu moom waaw léegi lan mooy euh, prochain plan d'action bi euh, après seen mobilisation bi lan ngeen fas ne def pour euh, vraiment nguur gi def li ngeen bëgg li ngeen di laaj. waa ñun suñu plan d'action la bëgguñu ko dévoiler nii ci presse bi dañuy bëgg bàyyi ba le jour donc ñu wax leen li ñu bëgg def li ñu bëgg def lan la quoi mais mënuñu ko dévoiler instant bi parce que ñu ngi si préparation mobilisation boobu aussi. Mm. di invité le premier ministre comme ni mu ko woon. pour mu déplacer wu ñëw parce que vraiment euh, euh, xeex bi daf cee daf cee impliqué woon bu baax. Mm. d' pour rappel man j'ai la copie de la de la de la de la première question écrite qu'il avait écrit à l'Assemblée euh, nationale. oui j'ai cette copie là ñun la ko soumettre la nekkoon ci donc daan liggéey ak ñun yooyu bu yàlla defee ba mu nekk premier Sénégal defe naa ni moom priorité des priorités mooy muy jël ce dossier là jéem a xool nu mu koy résoudre loolu daal laa gëm ni vraiment war na ko mën a def voilà war na def non seulement bañ a décliner suñu invitation mais ensuite euh, régler suñu problème bi vraiment ñu mën a féetee ginnaaw parce que loo ta wax tamit xeex bi a na Euh, dernière question en tant que euh, sénégalais naka nga gise plan Sénégal deux mille cinquante bi nga xam ni régime u Diomaye bi euh, lancé na ko noo ko gisee en tant que sénégalais. te vraiment li nga xam ne tey tamit moom gis nañ ko mooy lorsqu'il parlait de capital humain et tout ça li nga xam ne tey euh, am na solo mooy sa capital humain la mooy nit dañu war a jox cër doomu aadama yi jox cër doomu aadama yi d'ailleurs sax euh, damay koy fàttaliku euh, du temps de Macky Sall kam muy fii di visite terre bi di dem ñu koy wane matériel roulant train bi raay a affaire demee noonu posé na benn question bu importance en Macky Sall donc laaj na ko ni comme quoi que ñi nga xam ni tey jii dañ leen fi jële ci waax bi maanaam seen situation naka la demee quoi pour vous dire que moom am na jox na importance li may wax capital humain nit ñi ñi nga xam dañ leen déplacé te projet pour nga réussir ko loolu la ñu war a gën a jël en vigueur loolu la ñu war a gën a mettre en relief. Hmm. mais bu fekkee ne loolu dañ ko négliger defe naa ni loolu aussi ça pose problème vraiment c'est c'est c'est c'est important euh, lu ñu war a def rek mooy jéem a xool du ñu rétablir encore tous ces erreurs là cette injustice là yi nga xam ne tey jii kenn causé wu ko lu dul état du Sénégal. alors que état am na da nga xam ne ko doxalee ak ay askan. voilà merci beaucoup euh, Magot Macodou Fall ñu ngi lay euh, remercier bu baax a baax. merci beaucoup jërëjëf. voilà ñuy fàttali ni Macodou Fall yaa jiite collectif national des impactés du terre.